C'est pas normal cette décision. C'est pas normal cette décision. C'est pas normal Non, non, Ça c'est injuste. Ça Le président n'a pas bien fait. Ça c'est injuste. Seydou Gueye. il a toujours mis le président Macky à l'aise dans toutes les décisions Seydou dafa mës a bàyyi président Macky il a toujours mis à l'aise le président a trahi le parti à la Médina c'est injuste cette décision On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. D'accord. Si vous mettez avec nous, c'est nous. Eh, d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Ah. Vous nous avez trahis. Vous nous avez trahis. dina leer nag fii lañ koy xamee nag campagne yi doo commencé campagne yaay doo teg bi commencé waaw campagne yaay doo commencé waaw. baat jusqu'au bout président Macky Sall la ñuy déglu président Macky Sall la ñuy déglu président Macky Sall la ñuy déglu. yow dafa ñu ñoo fi nekkoon amuñu métti ñoo fi nekkoon parce que fekk ñu 2009 ba léegi ñu ngi fi 2009 ba léegi ñu ngi fi. lii ñu def décision. mais non d'accord uñ ci. man bu ma yeggalee président de la République vous appelez lui. oui. ça va tas ñu yaakaar. parce que dañuy wax tas na suñu yaakaar. waaw. waaw. respecté Seydou Gueye la ñu ànd ak moom depuis dekkil ngor depuis 2008. depuis 2012 yéen en tant que ay militant APR après dinañu woote dañuy waxtaan suñu biir ba noppi xool du ñu jël les jeunes amuñu jël benn décision instant yi instant yi foo leen fekk dañoo tàng dañ dal suñu demee ba toog dal suñ dinañ waxtaan suñu biir dañuy xool ak gën a waxtaan ak suñu leader ñu jëlaat suñu décision daal ñu xool na la ñuy def instant yi dañoo xaw mer rek waxu mer rek la ñuy wax nii incha allah yàlla baax na daal après daal dinañ leen woo ñu waxtaan ak yéen presse bi yéen ñëpp ñu xool ba.